من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu fii ci palaas bu barkeel bu tedd bii di Méoma Nazirou di ko taxawee suñ mbokk Ousseynou äh, Diop Assane ak hmm? hmm? Ibrahima ak ñi koy jàppale ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen siyaare waaye di nuyu nag kilifaay dëkk bi dalee ci xalifa bi mooy Cheikh Baye Mouhamed Nassir ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamed Nassir gi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara waaye di nuyu itam kalifaay dëkk bi dale ko ci imam Abdoulahi Ba ak almudir naib imam Salif Seck almuqaddam naib eh, cheikh Abdoulahi Dioum almuqaddam Aline Diouf qaadi Qudaat cheikh Omar Seck ak mboolem kilifa yi dëkkee ci dëkk bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ku mel ni Alaaji Baay ak ñu mel ni ñoom ak kër sabab bi Tafa Coor ak ñi nekk juróom waaye di nuyu itam jigéen ñi di nuyu comité bi njiital suñ mbokk Mbay Dramé ak mboolem ci bokk lal si nañ ci seen téere bi nga xam ne mooy lañ tuddee moom la mooy jawaahiru rasaayil mooy lettre yi nga xam ne dajale nañ ko ci lenn ci waxi Baay ndax waxi Baay moom lépp moom mm, neexu la dajale waaye yu bëree mi fii ci ay ndigle ak ay hubbee mooy fatawa ak ay jàngale ak ay xotab nga xam ne téere bi lamboo na ay njëriñ yu bëree bëri bëri tey nag incha allah ñu ngi war a dooree ci leetarab juróomeel bi su ko defee ñu daal commencé ders bi ne aoudu billahi min alsheytan irajim bismillahi irahmani irahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uxliqa wal xaatimi lima sabaq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 Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Amma Ba'adu Kon tambale nako Nim ba khodi tambale Tamay tuddu ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bapak Raya Santri Baram Bita Baraka wa Ta'ala Nga kane may baram kamne chanti Nyanti yam nyayam nako mong baram bi Mom nga kane may Bura besa kon koku loolu la bàyyi ubbee lettre bi fan la jëm mu fa ila ixwaanina wa axwaani wa axwaanina fa ila ixwaanina wa axwaatina wa axbaabina wa asfiyaina ahli madinati Faas lettre bi mu ngi jëm ci suñuy mbokk yu góor ak suñuy mbokk yu jigéen ak suñuy soppé waye ak suñuy nga xamné ñu sellal lañ suñu asfiya ñu sell ñu baax ñoy ñan ñoy wa dëkk bi ñuy wax faas panma mu ne daari muhibbina alwamiq والمريد الصادق العارف الغالي في محبة الله ورسوله rasulihi وسره mu ne kër googu dëkk boobu mooy dëkku suñu soppee al muhibu al waameq mooy soppe koo xam ne wa maxa mooy sopp na am na ma wada ba nga xam ne àgg na ba mel ni bëggul sax waxtu na mu ngi la moom bëggul sax bëtam tegee ko ak kan wal muriid asaadiq taalibe bi nga xam ne taalibe bu dëggu la al aarif ku xam yàlla aji xam ku di aji xam yàlla al faani ku di aji jeex ku jeex la itam fi mahabbatillahi ci mbëggeel ak yàlla wa rasulihi ak mbëggeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa cheikhi ak mbëggeelam Cheikhna Ahmad Tijaan radiyallahu anhu wa sirrihi ak mbëggeel ak mbootam Cheikhna Ahmad Tijaan radiyallahu anhu tam mooy Mawlana Cheikh Ibrahim al muqaddam fi tariqa at tijaniyya زاد الأسرار الربانية بالإذن الخاص من أهله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من مقدم كطريقة جانية طريقة طريقة بين قمنا برامي مبوت يين قمنا مبوت برام بلا ربانية لا تمام مقدم بي ميوخ mu ngi ko amee ci ndigal loo xam ne ndigalal xaas la ndigal loo xam ne mu ngi ko jëlee ci ñaxe yee joxe ndigal waaye itam mu ne ci kii lim def ku xeew joxe ndigal nga dem ci moom mu jox la ndigal nga sellal ko dem ba nekk murid sadiq mu ne wa fi dalika fali tanafasi almutanafisuna loolu de waaye kuy rawante kuy njëkkalante na def lu mel noonu na nga dem ci loolu yàlla wax na ci alquran ay yoon yoon wasaari'u ilaa maxfiratin min rabbikum njëkkalante leen jëm ci kon nag fala tanaafasi almutanaafisuuna ndax lu tax wa misaajoo mi tasniimin aynan yashrabu bihaa almuqarrabuun kon asayid alkaamil alhaaji Saalum mooy góor gu mu ne ko nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamu jàmm ak mucc aleykum yéen nekk ci yéen wa rahmatullahi ak yërmande yàlla taala kawe na taala na xew taala barkam wa ak barkem kon nag leetar bi bàyyi mu ngi koy bind an madadi mawlana atijani ki teub ki nga xamne moy mooy mawlana cheikh atijani radiallahu anhu wa ba'da tadru'i ila allah taala bi duaai lii wa lakum an yuwafiqana lima yuxibuhu wa yardaahu mu ne ah gannaaw bi mu defee tadron mooy toroxlu jëm ci borom bi tabaraka wa taala ci ñaan ñeexal ko boppam ak ñeexaleen yéen kon baay ñam bind lay wax kon ñun itam ci barke baay ci jaar ci buntam ci ñaanal leen ñaanal sama bopp ak ñaanal leen yéen yal nañu yàlla may tawféex yal nañu yàlla dëppale ci lam bëgg ak lam gërëm amiin waaye wa yarzuqnaa wa iyaakum aafiyata daarayni wa saadata daarayni waaye yan nañu yàlla may yan nañu yàlla ñun ak yéen mooy jàmmi àddina alaaxira ak texe àddina alaaxira amiin kon ñun ñu wax amiin xanaa mu ne oosikum wa oosi nafsi bi taqwalaahi fi sirri wal jahri fa huwa sirul asrar maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal yàlla ci lu feeñ wala boo ci lu nëbb ak ci lu feeñ loolu nag mu ne mooy mbóoti yi ana mooy lan mu ne wa huwa imtitaalul amri wa ijtinaabu nahyi fi zaahiri wal baatin lan mooy taqawallaa fi sirri wal jahri mooy topp ndigle yi waaye teet tere yi ci lu feeñ ak ci lu nëbb mu indi aaya ja atiicu llaaha wa atiicu rasuulahu wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp leen yonent bi waaye fii ci ulil amri indiwul ation waaye def ko ca ataf ak ñi nga xam ne ñooy ulil amri ulil amri nag dox ci bari na ca waaye ci gàttal ko daal mooy borom xam-xam yi ci gàttal ko daal mooy wali yàlla ci gàttal ko daal mooy aarifuna billaahi mu ne wa akadu wala wa akadul mamuraati asalawaat alxams fi ljamaat bi taharati li xeyril maxsuur mu ne li gën a feddale ko ci li yàlla digle ci liñ digle mooy julli yu juróom waaye di ko jooxe ci mbooloo ànd ak laab ndox ke ñaa xam ña amul ngant ña amul ngant mooy ña amul nganti laab ci ndox ngit febar la wala ragal febar wala ñak ndox waye itam ñi xamul gànt ju teewee yi féké fekkee feebaruñ defuñ dara mu wakata al ijtimaa lil wasifa ma al ikhwani wa shartuha nak al jamaa mekanonu ne moy di dajé di wasifa nga xamne ne ponk la ci ponk tariqa bi ànd mbokk yi moy mbokk tidiane yi sharta wazifa nak moy mbolo lay doon wa man tarakaha aw tarakaha ma al jamaati faqad intaqata'a an tariqati wal a'yaz billahi taala ku baye nak dem di wazifa ji wala nga baye ko def ak mbolo ta mbolo amna ta mbolo amna ku def loolu mu ne dog nga ci tarixa bi yan ñu yàlla musal ci loolu amin وكذا تعمير الأوقات بصلاة الفاتح لما أخلق فعليكم بالإكثار منها وخصوصا بالليل وخصوصا سدوسها الأخير منها من باتاي آه نغن dundal seen waxtu yi ci salaatul yi di ko jàng salaatul faatihi li ma wax ndax kat lahu bi la tëju loola te mooy al al wilaayatu ca firi ma nga xam ne danga nga xamee ne sallallahu alayhi wa léegi yonantu jeex na na moom mooy xaatimul xaatamul anbiyaay wal mursalin te jaami yàlla yi soxla nañ ku leen di jubal di leen jubandi di leen defal mu hubbi nag buntab li ñuy tuddee alwilaaya Cheikh Mahamad Tijaani radiyallaahu anhu kon nag loolu mooy faati li mu ne na ngeen takkoo di bari lu ngeen koy jàng rawatina nag ci guddi rawatina nag ca juróom-benneeli xaaj ba mujj ca guddi waaw juróom-benneeli xaaj ba mujj ca guddi guddi gi daal boo ko xaajee juróom-benn xaaj balaa fajar di xar xaaj mujj boobu mooy sudusu su axir mooy sud mooy xaaj bi gën ci guddi. فقد ورد أن في كل ليلة ساعة إجابة وهي ساعة تجلي الحق دنجا بقبول الدعوات وسائر الأعمال من ردنا نه قد gu ne am na waxtu woo xam ne waxtu wu guddi gu ne mooy waxtu feeñuwaay mën a tajali yàlla te mooy xàq ci lan mooy nangul ñaankat ya seen ñaan ya waaye nangul ñëy def leneen ci ay to xeeti topp ci ay xeeti jaamu yàlla ñooña yàlla dana leen nangul seen jëf jooju ci waxtu woowu noonu yan ñu ci yàlla boole yan ñu la ñu di ko def wa hiya maktuumatun fi ajzaa'i leyli wa adunuha asaa al axira minha mu ne waxtul ijaaba boobu nag nëbbu nañ ko ci guddi gi yàlla nëbb na ay yëf ci biiri ay yëf nëbbu na weer bi gën ci weer yi boog ñii ne mooy weeru koor masalan guddi gi gën ci guddi yi ñii ne mooy guddi laylatul qadar bàyyi radiyallahu anhu mu ne mooy guddi mawlid mawlid nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñu ngi koy jublu si yan ñu yàlla dimbale ba buñ ko xumpale mokk yan nañ ko teewee ca suñ pays ba pays Mawlana Cheikh Ibrahima ci Medina yan yàlla jàpp na dem beeg ñëw bi yëpp ñu yëg dem tëbb ji jëlee fa ay xiiw ak leer ak i maqaamaat del siaat ci suñu njaboot may loolu amin kon xaj ma itam nëbbu na see waxtu nangu naa ñaan ñi ne bii la ñi ne bii la salaatul na ko ñi ne bii la ñi na bii la kon naka waxtu nangu ñaan yàlla nëbb na ko nim la laylatul qadar ci weeru koor xam ñu ko joxoñ ne fii la kon noonu yàlla defee nim nëbbee ay xejam ci biir leen jaami yàlla yi mu ne kon nag bàyyi ne wa azunuha asaa al axira mina maa ngi yaakaar maa ngi jortu ne ah mooy waxtu ba mujj comme niñ ko waxee léegi mooy sulusul axir mu ne wa aleykum bi taamiri awqaatikum bi zikrillaahi azza wa jalla war na ci yéen ngeen di taqoo dundalee seeni waxtu yi ci tudd yàlla tabaraka wa taala yàlla moom nga xam ne azza wa aleykum bi ixtinaami majaalisi zikri war ci yéen ngeen taqoo jotaayu zikar yi ngeen fexe di ci màngee nekk seen mànguwaay ngeen di ci màngee laa siyama isa xadra isa xadraha kabirun rawatina nag jotaay yi nga xam ne kilifa ci kilifaay tariqa bi kilifaay pay bi teew nañ fa kon bu xam nga ne muy xëpp barke kon na nga fexe nga dem dem màngi ca am ca ay xiw yi nga tëbboo yóbbu ñu ne ko lu tax mu ne fahum ñoom qawmun la yashqa bihi bihim jëlisul aw nit lañ woo xam ne ku toogaaleeg ñoom ku jékkaaleeg ñoom doo texeadi ku jékkaaleeg ñoom doo texeadi qaala taala zkurullaha zikran kathira tuddu len yalla tuddu ku bari tuddu ko aji bari wa ana daaminun lakum antabluqu hadal xaddal bayne diglene ne digle ne ñuy tudd yàlla wax andil nañu aaya ja ne nañ ko tuddu lu bari mune ma ngi len di warlul ne maa ngi leen di garantil di leen ne ngeen xàgg ca dayoo bëril ga walaw kaana inda kulli wahidin minkum miata alfi lisaanin yaskuru biha sirran wa jahran laylan wa naharan laa yabluqu xadal kasrati mu ne su fekkonte ne kenn ku nekk ci am na téeméeri junne ci ay làmmeñ yépp di tudd yàlla téeméeri junne ci ay làmmeñ làmmeñ yépp booloo di tudd yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb bu guddeeg bëccëg du tax ngeen àgg ci dayab bëril googu yàlla wax tabaraka wa taala indallaahi taala min baabi axra an yu yaayu kon rawat na nag ñu yëy romb foofa wa warada inna dunya mal'unatun wa ma fiha illa zikrullah azza wa jalla wa na ba tey ci axar luñ rëbb waaye ak li nekk ci biir àddina itam lu ñu rëbb la ndare tudd yàlla muy tudd yàlla azza wa jalla ak ñooñ yàlla wala taltafitoo ila kala kalaami aadaai diini alhaaribiina ani dikri bu leen gestu bu leen faale di gestoo waxi nooni diini yi nga xam ne ñam daw nañ walis ñi tudd yàlla waxoon na gaañi ne antum fil inkaari wa nahnu fil azkaari wala boog dumtum nahnu fil azkaari wa dumtum fil inkaari yéen di leen rek ñun ñi tudd yàlla rek kay weddi kay kontoor ak lu mu tax it bu mu la teree tudd yàlla yow tuddal yàlla rek mu ne fahum mutraduuna wal iyaatu billahi taala ñoom de ñuñ dàq la yéen man de yàlla yal nañu yàlla musal ci loolu bal yajibu ala kulli aaqilin lahoo shafaqat lahoo shafaqun bi nafsihi aw diinihi an yafira minhum firaarahu min al asadi mu ne aa ah, war bal bahit war na ci kenn maanaam képp ku am xel képp ku am xel bépp aji xelu nga xam ne am na ñéewite ci boppam wala diinaam mooy mu daw sori ñooña comme bu gisee gaynde na muy dawe pour gaynde gi bu ko lor kon loo ci déggee mooy ñooñu ànd ak ñoom wala jëkk xar ñoom kon lor nga ciy jëlee rek lu tax mu ne fa man taradahu alxaqu fala faidata fii alqurbi minhu ku yàlla dàq sori la yërmandeem ah kooku kay xam mu ne jege ko xamul benn jëriñ kay kooku ay sori ko moo gën bal fadruhu aqrabu min nafii kooku kay dëgg-dëgg bal bahit bal fi nekk kay mu ne lorom moo gën a jege njëriñam wa aleykum bi taati muqaddamikum مهما أمركم بالمعروف أو نهاكم عن المنكر lillahi billah warna ci yeen ngeen topp seeni muqaddam ak lu ñeen mën a digal mënta digal ci njekk ci lu baax wala ñu tere leen dégg nga loo xam ne munkar la luñ sib la lu bon la te yàlla tax waaye ci yàlla ngir yàlla ci yàlla kon nag ki lay digal lu baax loo xam ne maaruuf la topp ko rawat na sa muqaddam ki lay teree lu bon ku lay tere munkar te yàlla tax baxal soril bu ko jege wa koonu lillaahi yakunu laahu nekk leen ñeexal yàlla yàlla nekkal leen ñe nekk ñeexal leen man kaana lillaahi e kaana laahu lahu mu ne wa kuunu fillah wal yakun illaahu fiikum fa zalika amaanaani min kulli fasaadin nekk leen ci yàlla yàlla nekk ci yéen mu ne loolu ñaari kóolute la ñaari kóolute la yoo xam ne dafay tax nit ki mucc ci yàqu kon yan ñu yàlla may amaanaan yooyu amin mu ne fa allahu jalla wa ala munazzahun anil fasaadi borom bi tabaraka wa mel ni da ko ne waaw lu nga wax ne wa koonoo fi laahi wal yakun ilaahu fiikum fa zalika amaana amaanaani min kulli fasaadin mu ne lu mu ne fa allahu jalla wa ala munazzahun anil fasaadi yàlla ku sell la kuñ laab la ku sell la ku laab la ci yàq waaw ci yàqu wala yàq taala an zalika uluwan kabira jomb na walis loolu kawe kawe gu mag borom tabaraka wa taala wa man arada suala wa man arada suala falyas'alillah wa man istaana falyasta'in billahi wa man talaba falyatlub minhu mu ne képp ku bugg a laaj dara ñaan dara laaj ko yàlla képp ku bugg a dimbandikoo na dimbandikoo yàlla tabaraka wa taala képp kuy sàkku dara sàkkoo ko ci borom bi tabaraka wa taala ndax kat yàlla moo moom ay mbiram yàlla moom ay mbiram moo tax nasru borom xam-xam yi wax ne baatam nasru nasru ndimbal yàllaa ko moo ko jagoo moo tax alquran foo gis baatam nasru yàllaa ko moom isa jaa nasrullaahi nasru minallaahi fadun qariban in yansurukum laa in tansurullaa yansurukum maanaam nasru daal mooy baatam yàlla yan yàlla boole dimbale kon nag mu ne looy laaj laaj ko yàlla sooy dimbali ko dimbali ko yàlla laaj looy sàkku sàkku ko ci yàlla tabaraka wa taala فوالله ليس عند غيره شيء لا في الظاهر ولا في الباطن ولا في الدنيا ولا في الآخرة مكي جن نماني جن يالا نه حمود كنين كدو هوت موم كو حم دارا حمود تلفين حمود تلنبو أمود تأدينا أمود تألاقرة واعلموا أن الله ساق الوجود في هذا الزمان مساق الهلاك ولا ينجو منه أحد إلا من رزقه الله محبة سيدنا الشيخ الخدمة التجاني الله أكبر من قم xam برمي تبارك وتعالى bi ويحمي wa taala waayu alkande léegi nag kenn du mucc ci alkande di jooje ndare koo xam ne yàlla wërsëgal na ko mu bëgg am cofeel am bëggeel ci suñ sang mooy Seydina Cheikh Alxadim Atijaani radiyallaahu anhu dégg nga mu ne wa daalika laa an يكون عارفا بالله بضمان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم mun ni mel ni def ne mahabatu googu nag mu ne kon foofu wala boo mu nekk di koo xam ne aarifu billaahi lay doon ci warlu ci garanti sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne waalamu ya ixwaani anna al mumina lil mumini kal bunyaan du baaduhu baada yéen samay mbokk ne jullit ak jullit daal mu ngi mel ni tabax bolog yi wala móol yi dégg nga benn bu ne day dëgëral moromam kon mu ngi mel ni takkoo geeg ànd gi kon benn tabax bi la ngay mën a am néeg mën a dëkk ci biir néeg bi kon jullit ñi ñoom itam dañoo mel ni tabax nañ àndoo nañ bennoo nañ di dimbalante nañ di dëgëralante al mu'min axul mu'min jullit jullitay mbokkam wala jullit mooy mbokkam jullit wa innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu naka ay méngoo la seen wir te mooy ki di dimbale mooy yàlla ak yonentam ak ñi nga xam ne gëm nañ yàlla la ne la méngoo suñu mbir amin wala taq wala tuqaatoo wala tadaabaro wala tuqaatoo wala tadaabaro wala tabaaxadu wala taxaasadu wa koonu ibadallahi ixwaana waay waay bu leen dogoon dogoxante ah waaye bu leen warante gannaaw di dëdduxante bu leen di bañanteek noonu bu leen di xañaanaante na ngeen nekk yéen jaamu yàlla yi waaye waaye na ngeen nekk di ay mbokk nekk leen di ay mbokk wala tajassasu wala yaxdab baadukum baada bu leen def tajassus dafa am lu ñu tudde tajassus am lu ñu tudde taxassus tajassus yaay sa bopp mbiram nit ki pour bëgg ko yàqal di seet ay ñaaw ñi ñuum téem wala ngay bëgg a xam ay secret bële nag moom da ngay sàkk ku la ko defal da ngay fay nit ne ko toppal ma diw seetal ma gëstul ma ci biram benn baaxut mu ne yéen jaamu yàlla yi waaye da ngeen nekk di ay mbokk dégg nga wala waxuna naa ni wala yaqta ba'dukum kum wala tajissu wala yaqta ba'dukum ba'dan wala tajissu wa bil akhas wa bil akhas man asra bi Cheikhna atiyani rawatina nak ñi nga xamne ñoy sahaba yi ñoy salibe ñoy ñooy daal bi Cheikh Ahmad Tijaan anhu kon ñoy ñoo faqad anhu neena na wa sadaq te na ci waxam inna lana martabatan تناهت في العلم إلى حد يحرم ذكره وإفشاؤه وليس هو ما ذكرته لكم Cheikhna Mate Diagne radiyallaahu anhu mooy wax mu ne aji nekk la ñeexal ñu martaba boo xam ne xàgg na ci dayo ci kawe dayo boo xam ne xaraam nañ ñu di ko tudd wala di ko siiwal bokkutan nag lima leen tuddal li ma leen wax dégg nga walaw zakartuhu la ajmaa ahlul xaqi wal irfaani ala qatli fadlan aman adaahum maqaama boobu wala martaba boobu su ma ko tuddoon ñi nekk xam ne ñooy xaq ba ñooy xaq ka ak ñi xam yàlla ñooy njëkk a jóg pour ma dégg nga <laughs> rawat na ñu diful ñooñu nag waaw kon am yi man lam yuxaafis ala xawaatiri asxaabina bi taabiir wala bi taxiir yaxallu bihi alhalaak bokk na ci xaasiya boobu xaasiya martaba boobu mu ne ku sàmmuhantewut ak xaatiri suñuy sahaba moy ñiy tiyani yi ci soppi kon halkande dana wacc ci koku yan ñu ci ko musal wa wa man kana muqaddaman an yabsuta ridaa asitrihi. ala kulli khalalin wa ya'fu an al ikhwani dégg min kulli zalal mune ne ku nekk muqaddam mu lal dégg nga mbalaanam wala kafe kafetu dégg nga mooy muuraayu làmbaayu sit sutra, sutura ci lépp loo xam ne ak xëy na njuumte la yàq-yàq la wala ak tarxiis la hmm? dégg nga ci mbokk yi wa in tawa tawaqada naaru yu yusaaricu fi itfaihi min baynihim waxtu woo xam ne safaraaw safaram si xay ma ngay jée ma ngay tàkk ci mbooloo ma na gaaw dem fay ko dégg nga na gaaw fay ko maanaam bépp xuute bu am ci diggante taalibe yi na muqaddam bi gaaw jeexal loole mu gaaw jubale leen ñu nekk benn ndax warut di toog di seetaan wa aleykum bi taati al muqaddamin mahma amarakum wa mahma amarukum bi maarufin aw e, saa fi islaahi zaati baynikum na ngeen takk takk topp war na ci yéen war na ci yéen ngeen topp muqaddam yi waxtu ñu leen digalee dégg nga ci njëkk ci mbaax wala dégg nga ñuy dox muy dox di xéwénal dégg nga zaati baynikum mooy seen diggante bu buggoon a yàqu mu daldi ko pexe ñu juboo ñu bennoo bàyyi daal buggut taalibeem yi xuute déedéet mu ne wal yaxdari bi dalika an taxrimi dunyaahum na moytandiku nag ci loolu hmm? waaw xam nga xurma duniyaa léegi sax àddina bi kat kenn warta fexe àddina bi lekk ay xiwam ay alaxiram almuhim wala yatashawaf illa ma fi aydil ixwaan du nekk di def tatalo di def tatalo di jéem a wala muy jéem am wala mu jéem a jël li nga xam ne moom la mbokkam yi amee te mooy taalibe yi amee ci alal la nekk ci ñoom bu ko def ta di ko jéem a aaliman an laa huwa al wa huwa al wa al xaafid wa al raafi na xam ne yàlla mooy joxe yàllaay xeñe yàllaay suufeel yàllaay yëkkati yal nañu yàlla jox yal ñu yàlla yëkkati amin ila axiri kalaam yi ci mujj a waxam ja moom Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu ne musalliman nag ala habibina al aaz al aarif billahi alhaaji muaz wa man taxtahu min al ixwaani wa usikum mu ne maa ngi nuyu suñ soppe bi nga xam ne bu tedd la ki nga xam ne ku xam yàlla la muy alhaaji muaz ak ña nekk ci ronom ci ay mbokk wa usikum bi xaamili kitaabina haada wa usikum bikum wa asalullaha taala an yuslaha aalana wa xaalakum wa ma aalana wa ma aalakum wa yarsuqna alsidqa fi lubudiyya walxiyaam bi xuquqi rububiyya wa yatawallana wa yatawallakum fa huwa yatawalla alsaalihin mu ne maa ngi leen di dénk nag kii nga xam ne moom laa jox lettre bi mu indil leen ko maa ngi ko maa koy dénk moom itam yéen maa ngi leen ko koy dénk maa ngi laaj maa ngi ñaan yàlla laaj yàlla mu xéwénal suñ xaal ak seen xaal maa ngi koy ak suñ delluwaay ak seen delluwaay yéen tam yàlla wërsëgal ñu dëggu ci aboodiyatu suñ jaam yaa googu waaye ñu taxaw itam nag ba lépp loo xam ne xaqur boobu ya gën a jag yann yàlla méngoo ñu yann yàlla méngoo leen yàlla mooy ki nga xam ne mooy méngoo way xiw ña saalihin yi yan ñu ci yàlla boole wa yëmitu naa fi mahabatil xatmi atijaani yan nañu yàlla rey bu waxtu ba jotee waaye fekk ba ñuy dee ñu nga am bëggeel ci Seexna Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu wa yaxshurna fi zumratihi bi maxsal anbiyaai wal mursalina fi jiwaari sayyidil wujuudi sallallahu alayhi wa yan na yàlla fanguñu ci mbooloom Seexna Ahmad Tijaan moomu ca fangu waayu yu anbiyaaw ak mursalin waaye ca boori sang ba nga xam ne mooy sangab ويهمني تما ينتهي رحمة الله عليه وسلم في أعلى عليين في مقعد صدق عند ملك مقتدر شكرا جاك يا عليين ci jékki waayu dëgg boobu ci buur bo nga xam ne buur bu am kattan bu am doole la buur boo xam ne mooy dogal lu ne mu ne wa kataba ali siisi min imlaai cheikhina wa ustaasina maulana ibrahim ibnu alhaji abdallah atijani ama alfin wa thalathmiya wa khamsin hijriya bi kuusi bind na lettre bi Aliou Cissé ci fite ci fite ci ndigalu ci fite ci say ki nga xamné ne suñu sëriñ moy suñu oustaz moy Maulana Ibrahim, di doomi Alhaji Abdoulaye moom Alhaji Abdoulaye Niass atijani ñing ko bind xatam junne ak ñetti téeméer ak juróom fukk ci gada yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Koosi bind lettre bi kon nak defana su fekkee waxtu yi jaxna wala hmm Hmm? jeexagut jeex na waaw kon lettre bi jeex na mu ne waxtu bi jeex na kon ñu ngi jéem a tëj lettre bi foofu di nuyu xaan ñëpp beneen yoon di siyaare ñëpp beneen yoon di ñaan yàlla lépp loo xam ne dëppoo nag sawaab ñu xam ne mbaax la ak dégg nga hitte yi ak euh, karaamaay ki nga xam ne tey moom mbind mbind mi ñu di ko jàng <coughs> kon lépp lu ci njuumte nag Ah, nga xam ne su ma matati la su ma ñàkk xam la kon tu boobaa ñi yëgal ma ko ñu xam ñi yëgal ma ko te matal ma ko maa ngi nuyu ñëpp beneen yoon maa ngi nuyu ñaan yàlla ñi dem ci màggal gi yéen a waaye ñu ngi ñaan nag ah xam nga ne tey la altine léeg-léeg kat miya ah naa ne suba la war a doon wala tey la almunim léeg-léeg kat boobu nga xam ne. kenn xamu ko fii ci aduna kenn du ko xam kon ñu ngi ñaan yalla yalla ñu la tax ci barke guddi gogu euh yalla buñ ci faat yalla nañ ko jëriño ñu ngi gërëmaan ñëpp di wa ah, waa na Nazirou TV online Ousseynou ak ñu koy jappalé di nuyaat benen yoon Cheikh Baye Mamadou Nazirou ak mboolem imam yi mboolem borom xam-xam yi mboolem kilifa yi góor jigéen mag ndaw sabab ñëpp nuyu na leen ma ngi nuyu suma njabot suma wa kër yëpp ñu ngi leen di nuyaat di ziar di leen ñaanal jamm ñi fi nekk ak ñi ci biti ñëpp yalla samu leen dafa leen jamm jox leen seen ciakuteef ñu ngi wax ne kullu aamin wa antum bi xayrin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillah jërë ngeen jëf seen